beautiful beautiful beautiful rafet rafet beau belle magnifique beau belle magnifique jamil أو جميلة جميل جزال ugly ugly ugly ñaaw ñaaw lae moche led moche قبيح قبيح قبيح الوجه أو قبيح المنظر شركن شركن afraid afraid ragal ragal crain crainte effrayer peur خائف أو خائفة خائف كركمش كركمش angry angry angry mer mer en colère, être en colère. Fâché, en colère, fâché. غضبان غاضب أو bad bad bad bon bon mauvais, mauvaise, radii, sayyi, kötü, kötü, beggar, beggar, beggar, yalwaankat, yalwaankat, mendiant, mendiant, mutasawwil mutasawwil di di leen ji brave brave brave jàmbaar jàmbaar courageux courageux brave brave shujaa shujaa shujaa cesur cesur cheap cheap cheap yomb yomb bon marché bon marché raxiis raxiis ujus ujus clean clean clean set set propre próprio, navire, navire, temiz, temiz, deep, deep, deep, hot, hot, profond, profond, عميق, عميق, Derin delicious delicious delicious neex neex delicieux délicieux l'avis du temps l'avis du temps lezzetli lezzetli difficult difficult difficult jafe jafe difficile difficile صعب صعب زار زار easy easy easy yomb yomb facile فصل سهل کلاه کلاه dirty dirty dirty salte salte sale sale خزير وسخ خزير وسخ curly kirli peas peas dry dry dry wow wow sec sec jaaf jaaf yaabis yaabis crew crew crew. Thanks for watching. Generous, generous, Tabe, tabe. Généreux, généreux. Karim, Karim. Saxi, saxi. Jomer. Jemer, Jemer. Glad, glad, glad. Bek, bek. Heureux, heureux. Content, content. Farhan, farhan. Masrour, masrour. Mutlu, mut. lu ممنون ممنون hard hard hard dëgër wala soxor dëgër soxor dur difficile dur difficile xaas صلب xaasin صلب Certes. Certes. Lazy. Lazy. Lazy. Tayel. Tayel. Paresseux. Paresseux. Kasoul. Kasoul. Kaslan. Kaslan. Tembel. Tembel. Heavy. heavy heavy diis diis lourd lourde ثقيل ثقيلة ثقيل عاجر عاجر light light light woyof woyof léger لاجئ خفيف خفيف حفيف حفيف impolite impolite impolite réew réew impoli impoli malpoli malpoli غير مهذب غير مهذب قليل الأدب قليل kaba كبا كبا intelligent intelligent intelligent yeewu yeewu muus muus intelligent intelligent zeki zeki zeki zeki akıllı akıllı jealous jealous jealous soxor soxor iñaan iñaan jaloux jalouse jaloux xasuud xasuud Kıskanç. Kıskanç. Kıskanç. Just. Just. Just. Mandu. Mandu. Mandu. Just. Just. Adil. Adil. Adil. Adil. Liar. Liar. liar fenkat fenkat menteur manteus menteur menteuse كذاب كذابة كذاب يالنج يالنج long long gudu gudu long, long, long, long, طويل, طويلة, uzun, uzun, miser, miser, miser, nay, nay, avare, avare, بخيل بخيل Chimri, chimri, merciful, merciful, merciful. Bari yermande, bari yermande. Miséricordia, miséricordia. Rahim, rahim. Merhametli, merhametli. Narrow, narrow narrow xat xat étroit étroit ضيق ضيق دار دار Thanks for watching.